Bonjour. Voilà, monsieur. votre nom Je m'appelle Abloukarim Diallo. Voilà, en tant que ressortissant guinéen vivant ici au Sénégal, euh, ce qui vient de se passer en Guinée hier avec la destitution d'Alpha Condé, euh, sous la houlette d'un coup d'État perpétré par le lieutenant Mamadi Doumbouya, quelle lecture faites-vous de ce qui se passe actuellement dans votre pays À mon avis, je demande le bon Dieu, le plus haut du ciel, bas du terre, d'aider les gens qui ont pu faire destituer le gouvernement d'Alpha la population guinéenne de l'aider à réunir tous les Guinéens, ceux qui ont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur. Parce que le peuple guinéen est trop fatigué. Le que pendant les 10 ans du pouvoir d'Alpha Condé, les gens sont très, très, très fatigués. C'est 1% qui se, euh, qui se en Guinée. Je voilà, donc, euh, c'est les militaires qui sont au pouvoir. D'habitude, euh, il y a chaque fois donc qu'un président est destitué, c'est les militaires qui arrivent au pouvoir. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont quand donc euh, des élections démocratiques, essayer donc de remettre le pays donc euh, sur la bonne marche? Euh, à mon avis, je me demande aussi encore les gens là, comme ils sont promis qu'ils ne vont pas durer au pouvoir, d'organiser les élections libres et transparentes, que Dieu nous donne à un homme sensé à pouvoir dire réconcilier entre les pour que ça réussisse, que les Guinéens ressemblent à les pays développés du voisinage. comment prévoyez-vous l'avenir de la Guinée J'espère bien que le discours de monsieur euh, de colonel Mamadi d'hier que je suivi, j'espère bien que ça va réussir. Oui, Mamad Lamine Diallo. Voilà ce qui s'est passé en Guinée, vous êtes au courant. Alors, euh, quelle lecture faites-vous de ça ouais, euh, Je crois que c'est d'ailleurs. Donc, euh, quand même, la jeunesse. Guinée, les ressortissants guinéens qui sont au Dakar ici. Mhm. J'espère 95%, nous sommes contents parce que euh, la jeunesse guinéenne qui sont en Sénégal ici, particulièrement à Dakar, euh, donc les gens sont souffrent. Mhm. Parce que presque un an et demi, la frontière entre la Guinée et le Sénégal C'est dans ça nous on est euh, donc c'est une joie pour nous. En fait euh, nous on remercie d'abord le colonel ou bien j'espère ce colonel on le, on le remercie beaucoup. Donc j'espère le lieutenant Mamadi Doumbouya. la discours qu'on a suivi hier euh, il aura des choses qui améliorées dans notre pays. Comme donc, quoi, par exemple, qu'est-ce que vous attendez de ces militaires au pouvoir Donc, moi, je les attends de, de réunir tous les fils de pays, parce que depuis l'arrivée d'Alpha Condé, ça fait 10 ans, tous les Guinéens sont divisés, et la fait diviser par régner dans notre pays. Donc, j'espère le colonel va régler ce problème-là pour que la fils de pays soit ensemble, et euh, nous vivons ensemble, parce que c'est ça que nous voulons. Donc, Euh, je j'appelle aussi tous les fils de pays de les respecter de de, de, de la constitution guinéenne donc c'est ça. bon maa ngi fi man Aïssatou Bari laa tudd. Aïssatou li xew Guinée ban jàngat nga ci am. bon tout d'abord avant tout d'abord je salue tous les Guinéens qui sont ici. bon je remercie le colonel Mamadi et bon je suis très très fière de lui bon lu def si Guinée yi parce que dix ans comme ça ñun mënuñu léegi Guinée yëpp dañoo diviser ñun suñu xale góor yi ñëpp kenn kenn mënul kii dara daal suñu dëkk bon je suis très fière de lui je suis à cœur avec euh, Mamadi Doumbouya merci beaucoup. tey noo xalaatee Guinée tey ñoom ñu toog lan nga leen di ñaan ñu def ko ngir réew mi. bon maa ngi ñaan xale góor yëpp dellu suñu dëkk bon ñu commencé liggéey toog waxtaan jàmm am suñu dëkk daal loolu lañ loolu laa bëgg. sëñ bi nanga def. maa ngi fi noo tudd. Souleymane Ba. voilà Ba nu gis ba Guinée am na xew-xew gu fa am Alpha Condé wàccee nañ ko militaires yi jël nañ pouvoir bi tey noo jàngatee lii ni mel. waaw alhamdulilahi rabbil alamin colonel Mamadi Doumbouya ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm parce que ni ko gisee nii yaakaar nañu dina changer lagine parce que programme la Guinée ñun ñi génne yëpp par exemple dañoo son am ñoo xam ne ñu ngi jógee Guinée dem dee ci ndox bi am ñoo xam ne ñu ngi dem dee ci par exemple ci côté euh, désert bi bon vraiment affaire bi dafa métti mais dañu ñaan yàlla kii nañ ko yàlla may mu régler situation la Guinée ak situation sous région bi fii yëpp vraiment kontaan nañu ci moom waaw loolu laa amoon lu may wax que jàpp nga ni euh, yëf yi dina changer ndax chaque fois militaire yi ñooy toog mais dañuy gis ni après ñii ñëwaat liñ leen di dig duñ ko def waaw insha allah yaakaar nañu dina changer parce que kii moom eh, am nañ ci yaakaar ci moom parce que eh, nit ku xam la dafa am xam-xam dina changer la Guinée dina ñu par exemple pour génn si coono incha allah waaw